السلام عليكم كادو اسكان بي دنكان امبوسي علي لو ماتياس كادو اسكان بي نيغي زيارات بو باخ دي گلم وا كاولخ ييب في ني نيك نك موي بونتو گوفرنانس كو نه خامن گوفرنانس كاولخ نو ميلون خال كانم بي نيكو ساغي كاولخ كوي دوغس دك بي رومبو دي گنا ا كاولخ نو ملني دومي كاولخ فالو كبي جيل علالم اك چونوم جيل لب ام نيگل كليفاي دي دافا واخ دك نيخ يالا كوي كوي دافا واخ دك نيخ يالا نك مو گن كوي ياك kii bind lii muy Pape Gueye Pape Gueye amul ak moom benn problème suñu frère la suñu xarit la waaye nag ñu ngi lancé appel Kaolack waaye ngir yàlla ak yonent bi nan bàyyi indiscipline bi ak yenn yi nga xam ne rafetul fii mun taxaw fii léegi nit ñëw na ba suñu tànk suñu tànk yi xool li banaana ba mu xoo mu sànni ko suñu kaw soo naa ne café sànni naam war na am ay poubelle war na am nangam waaye mënul dëkk di yuuxu naan Macky Sall Macky Sall sëriñ boobu sëriñ boobu maire diw maire dëkk bi maire nangam maire yi nan liggéey na président de la liggéey waaye population bi nan nan dimbale nan dimbale nit ñi indiscipline bi ëpp na lii kii def lii teyeef la nit mënul nekk jël àllam di góorgóorlu di defar di peinture ba mu rafet pour Kaolack yëpp gis seen bopp xar kanam bi kanam gi taa ka Kaolack taaru ngay ñëw di bind ak li politique boobu mun ci bind fekkoon fu ma far la sax nekk lu rafet nekk lu jaadu Kaolack ñoo ko bokk nañ bokk ndey bokk bàyyi dafa dëkk bi yàq bi ëpp na te yàq bi tegun ko fenn lu dul si reewande xool li Fallou Kébé def ak lii mu def ngir yàlla ngir Kaolack lii ñëpp ko rafetlu ba jàppale ko mu am suivi xoolal ma lii lii lii xoolal ma lii xoolal Kaolack du meloon waaye xoolal tey xoolal Kaolack nu mu meloon waaye xoolal xar kanam bi Kaolack nu ko nu ko def gouvernance xool nu def buntu gouvernance ah matias, waaw xool xool nu def buntu gouvernance bi ah, xam nga lii nii c'est un geste à saluer. waaw ah, oui Fallou Kébé lu mu def nii dafa rafet. dafa rafet bu Kaolack waay mais nag ñu ngi sensibiliser population Kaolack waay ñu bàyyi sabotage yi lii sabotage la. waaw ah, oui li ñu leen lancé appel nag waxal ne ne ñu leen di ko fi bindati nen la jàpp nañ digaale yow oh, yoon na am si yoon dem leen si commissaire central war leen ko dem leen si commandant ne nii tey ñoom ñoo nekk suñu autorité su dëkk bi wax nañ leen ko képp ku fi bindu turu jàmm wala nga bind fi tur wala nga ñëw bind ko nga avisé fi nañ ko jëflante yow salaamaaleykum wa rahmatullah